jotay bu yaatu bu nga xamne jang jàng waxtani waxtaanee Mbaye ak Serigne gann Messere Makhtar ñoo fa fété won defé na bu ju doon xol taxaway jigen ci l'islam doyna ci sekk misal waye taxawayu jigen ci participer ci société bi

ni nga nekk ci ginnaawam ni nga koy liggéeyale ni nga nekk ci parti bi kon loolu aussi ñu ngi koy rafetlu ñu ngi la ci sant ñu ngi la ci gërëm di wax jigéen ñi rek ne leen lii ñu def mooy li am solo mooy àndandoo nekk benn bokk ndey bokk baay soobu ci li nga xamante ni mooy liggéey bi ñu def muy le développement di département de Mbacké waaye aussi nag soobu ci li nga xamante ne bii luñ lu yitteel la mu di jàppale ministre le président de la république. kani département bi mënuñu ministre gouvernement bu ñëw ñuy séntu ana ministre bañ ca am waxuñu ministre bu nekk Diourbel waxuñu bu nekk Bambey ministre bu nekk fii ci département Mbacké la ñu bëgg. on a des jeunes am nañ ay espoir am nañ ay cadre benn gis nga galo ba lii mu dajale te nag ñeneen nañ fi ñu ko man kon nag pourquoi pas à chaque fois. chaque gouvernement su gouvernement bi jàllee ñu taxaw di xoole ñu naan ñu amuleen ministre monsieur le président de la république loolu ñu metti la te nag pare nañ pour liggéey ak yow monsieur dama ni Ba mii tey xam nañu ko gis ngeen fi mu jaar galo tëbul rek ñu def ko directeur SOGIP am na fu mu jaar fi mu jaar fépp def ko rafetal kan moo mës a gis ci journal ñu bind fa Gallo Ba def na benn tache jamais au plus jamais mais kon pourquoi pas am na cadre la mais pourquoi pas mënu ñu leen def ay ministre lu la nit mëna wax ku la fi wax man nga tax nga gagner lu il faut que département Mbacké bi tay gis ci bop sen bop ci gouvernement bi nga yor je pense que ni loolu buñu ko défé da nga xamné département Mbacké ànd nañu ak yow. jigéen ñi nekk ci ginnaawam moom DG Galoba kenn demul ñu des ci wàllu mobilisation bi Daba Diouf di wax ne li lépp la ko waral weesuwul jéego yi nga xam ne mi ngi koy def ci jàppale ndaw yi ñu am xëy. li may wax mooy ay jigéen ñu engagé encore une fois nga yor fas and ànd takku jàppale la ndax ñun dañuy fay asaka yéene rek ndax DG yow kenn mënu la fay DG ma nga ca jigéen ña ma nga ca jeunesse ba ma nga ca mag ña ma nga ca sëriñ sa amul lenn lu ko nit mëna méré côté emploi mom amul lenn lu mu ciy prouvé rawati na ci jeune yi jigéen ñi nak mom machallah machallah ko ci gis mu gàddu saak di xey ci jamono ji ñu toll wala mu yor sa volant di dawal auto rek c'est grâce à lui kon ñing koy sante di gëreum côté financement mom jooyatuñu ko ndax DG Galoba machallah lepp lu ko war ci jigen mi ngi koy def DG ku febar mo ca gën ku ngenté mo ca gën DG yow dañ lay dënk yalla suñu borom rek mu fayal ñu la parce que ñun mënuñu la fay ah, dañuy def suñu asaka yene motax jigen ñepp ñëpp a tënk seen kàddu ne tak nañu seen digg andak yow fi nga nek tay dinañ la fi jole yóbbu la fu gëna a fi inshallah rabbi wax na nag président Macky Sall danoo bëgg di la ñaan nga yokal ñu deesee gala ba garata Mbàkke nanu ko yokal lum ñu may nanu doli may nanu waaye ne ko nanu dolli jigéeni Mbàkke né nañu doli deesee galo ba deesee galo ba ci social deesee galo ba ci liggéey mboolem jigéen ñi Mbàkke ñëpp a ngi gàddu saaj di liggéey ñii ngi ci santé bi ñii ngi fu nekk di liggéey ku nekk wutal na la liggéey li mu am kus néew bokk na ko ak waa Mbàkke mi ngi ci mbooya mi mi ngi ci naaj wi tàng wi mi ngi ci ngelaw li dawut Mbàkke benn yoon suba guddee bëccëg suba ngoon deesee gelo ba ma ngi Mbàkke ay kàddoom moom Gallo Ba mu yemale ko ci woote bennoo jigéeni Mbàkke mobilisation bii ngeen def mën naa ne awma seen fay ndax xotti lu ma leen jox ma leen paas ngeen ñëw yéen a mobiliser ma jaral leen ko ma ngeen jaral ma ko dama leen di bereel mention spéciale di leen sant seen mobilisation permanente di leen sant seen engagement per constant te li ñu boole mooy le développement de Mbacké mooy développement commune Mbacké mooy développement département Mbacké ngien and ko ak les jeunes engagés du parti et de la coalition Berno Bokk Yakar au niveau du département kon nak bi ngien amé initiative bi ngien ñew ngien ma dañu bëgg def conférence ma dina leen jappalé ngien def conférence bu mësul am Mbacké té lool mo am waaye nag lépp luñ ci am lépp dañ koy delloo président de la ndax moo ñu wóolu moo ñu jàppale moo ñu yéene moo ñu taxaw ndax dafa fekk ba nekk directeur national nekkoon DRH 2008 ba 2016 ma ñëw engagé wu taxawal mouvement politique mu ne mën naa ko jàppale ci Mbàkke mu bàyyi ma ministère.

mu xool sepp seppar ji ba jàpp li nga xamante ne war na koo def ci ñun ak ci yéen ñëpp ñu bàyyee ko lépp wax nañ sànq ne président de la République jàppale na ni ñi ci conférence bi jël na 3 millions jàppale ko jigéen ci organisation bi bi 3 millions yegsee fekk na lépp luy war ci conférence bi def naa

képp kuy kilifa ci faire gi commune ñu engagé wu ndax lañ jëm mooy élection locale la élection locale du élection parti politique du élection APR du élection PS du élection PDS de élection société civile Nous waa Mbacke nous nañ tànn suñu maire nañ fexe ba maire yi Mbacke bii ñu jox ko ko jël maire Mbacké bi liggéey Mbacké fexe xar kan mo Mbacké soppeeku li am fatik am Ndar am am am Guédiawaye am Linguère lolou war naa mën am président da la République yéen a Mbacké commencé na fé def ay djégo ñu lépp tek sen bët waye nak da soxla ko xamante ni ci maire bi xamna limu bëgg xamna limu mën andak mom ci ay vision ak ci ay programme développement kon loolu maa ci woon ñëpp dala sama loxo ñëpp ñu fas yéene ko ànd jàppante yéenante ba liñ bëgg ci Mbàkke yàlla jàppale ñu ñu soppi xar kanamu loolu laa waxoon fa lay samay kàddu